xam ne mi ngi war a am le 24 janvier 2020 euh, comme ni ko suñu suñu suñu préfet defee rek ci benn ci ab CLD bi ma def préfet def ko ci ab CLD tey ma doon bisu CRD bi bi nga xam ne moo waroon vraiment tënk li li nga xam ne moo ñu defal ci wàllu département Kébémer mu ñëw fi ci région bi ànd ak ci service yi nga xam ne euh, ñoo war a def liggéey bi ñu xool aussi ni ñu ciy euh, waxee ni ñu koy waxee ni koy defee ba lépp aussi tamit mën a mën a mën a àndu vraiment tamit ñun aussi

xamante ne ni ngay ni ngay ni ngay daal sama xelal dal na ci wàllu woowu lépp li nga xam ne jël nga a a def defal ba léegi waaw ñu ah, xool ni di di li ñu ko tënk rek dañ ci fàttali Cheikh Mouhamadul Amin Bara bis bu gënee àddina sëñ Saliou moo waxoon ni bisu taw feex la bisu faj aajo la bisu ndimbal la loolu ci nekk ci ay taw moo tax ñu koy woote kon képp ko xam ni danga nga am aajo wala nga bëgg taw feex bis boobu mooy bisu faj aajo mooy bisu taw feex Mbacke Kadior bi ñu koy defee tam wax naa ko léegi mooy berceau du mouridisme moo nekkoon palais de justice bi nga xam ni Mame Mor Anta Saly fala daan rawatina ci Mbàkke Kajoor am na lu ñu ci mënal suñ bopp am na ci loo xam ne ñun mënaluñ ko suñ bopp état moo ñu ko waral moo waral jataay bii moo ko waral ñu sant leen gërëm leen ci jiitu yëpp ndax mosuñu fee sàkku dara te amuñu ko liñ ko bëggoon kon mosu leen gouvernement tàmm na sous-préfet préfet département ba ci yow chef de service régionaux yi ministre de l'intérieur ak gouvernement bi ba ci président Macky Sall sëñ baa koy sant di leen gërëm ci jàpp gi ak yëg gi ak àndandoo gi nga xam ne ànd ko ndax li ñuy wax rek moo di ñaari point la waxoon ni nañu ko soññe bu ñëwee fi mu si def bu njëkk bi mooy brigade bi nga xam ne Cheikh Sidi Makhtar moo ko ñaanal président Macky Sall ba le général May Sagnan booba moo nekk ñëw poson première pierre bi benn entrepreneur bu ñuy wax Jibi Gueye moom lañ ko joxoon moo ko yore def na lépp ba sanitaire yi sax mi ci biir loolu la sëñ Moussa wax ni bëgg na ñu àggale Macky Sall moo ko may Cheikh Sidi Mokhtar six mois la war a am liggéey bi mi ngi ci ñeenti at moom itam waxoon nañ xamoo lu ko gàllankoor xëy na entrepreneur bi waaye li ko waroon a génn li ko waroon a defal yëpp AGETIP na engagement ak entrepreneur bi ba lépp mi ngi woon en cours ba yaakaar naa finition moo ci des ñaar yooyu mooy yi nga xam ni bëgg nañu président Macky Sall jàppale ci Serigne Moustapha ba mu àgg ci jàmm ak ñaar ñaareel ba centre de bi itam. amoon na benn dentiste bu ñu fa indi woon dentiste boobu dafa ñëw rek benn période bu jël ko yóbbu ko xam nañu sant euh, ni muy doxee na di tax ñu jëlee ko fa leneen la waaye suñu sañoon keneen ñëw remplacé ko bu fekkee moom mënut a ñëw li gudd gàtt daal mooy bu suñu gouverneur ñu ngi leen sant maag délégation bi nga xam ni bàyyi ko nañ Touba ñëw fii ci CRD bi ngir ñu xool li nga xam ni mooy baaxal màggal gi wax